fuuf ndax moom au mos du góor jigéen jël na jigéen takk ko ci farata yàlla sunna ak Muhammad dugal ko ci biir këram yow nag doo ma sa takk jabar ndax góor jigéen nga da ngay puus day di juutu ñuy katt sa bun bi ba ba muy senn yow da ngaa mën a génn sans couche yaw dooma raam nga ne yow yaay xaste yow war ngaa xool boos rek yow nga ne da koy xas moom au moins jeune bu am fulla la fayda mu ngi am ay abonneem te dugalul lëfu jàmbur mi ngi am ay abonneem dignement dugalul lëfu jàmbur balaa maa dee ngeen nit ki di jël sénégalais barki Serigne Babacar Sy Macky mooy meilleur président du monde. Macky Sall doon mérité muy xëy di kat seen di xëy di dëgg seen ndey doole tey 22 octobre 2023 yéen Macky Sall doon ngeen mérité te Macky Sall ku mu teg ci réew mi yàlla na jël réew mi ndax yéen. amiin Amadou Ba la teg Amadou ñaanal Amadou foog ngeen am président boo xamante ne génn sax daleen koy tere. génn ci mbedd mi sax daleen koy tere. mburu instant bi Macky président Macky Sall man Awouskity may wax ak yow. dëgg kontaan naa trop ci yow. la nga yónnee gis naa ko kontaan naa. mais lenn dong laa gën a bëgg. mburu cherul diwlin cherul ceeb cherul kattal ndayam nga yokk lépp. na gën senegal yokku <laughs> Sénégal wax. mais Sénégal yi nag yoruñu nag awuskiti. man déglu ma rek yoruñu de. man awuskiti maay wax ak yéen ceeb cherul diwlin cherul. mburu cherul ndaxte ceeb ak diwlin bu cheroon sénégalais yi duñu tal di wër di duul di dugg ci ay commentaire wala di xas koo xamante ne handicapé la. sumul bàccali sumul bàccali nee na awus sumul bàccali nee na ceeb dafa seer diwlin seer. na kat Sidi Ablaye Diop xaas ko. moo ko wax de Soumboulou Bathily doomeraam la. dara seerul ci moom bëggul ma Sall da koo bañ. président du monde yaa fi def lu kenn deful yaa delloo màndaa ne bëggatoo da dem yow rek lañuy topp dañoo juumoon rek xelu xale ñu jàppoon. waaw waaw yaa baax ñun ñoo bon. billaay wallaay yow yaa baax ñun ñoo bon. kumba ci xamoon na lu mel na yow la jur gis nga damaa bëgg. ki ngay teg ci réew mi muy Amadou Ba wala keneen ak keneen dinañ leen campagnal dinañ gagné jël réew mi par force parce que sénégalais président yu mel na yéen kase kase kase lañ mérité. très bien ngeen seen nday chaque jour di ubbi seen lëfal nday chaque jour parce que bu bu dëkk bi cheroon Palestine taluñu instant bii di wër di duulal kenn. Palestine talu ñoo wër di fenal kenn kenn kenn benn réew. ak Israël di duul yi ngeen di duul yéen sénégalais yi ba tey. dugg ci commentaire jàmbur di wër loo leen duul dugg ci ay ay di xool physique gu nit di ko xas ummi bu yalwaanee ak bu yalwaan lu ci seen tuunu nday laa xamul. très bien. lu ci seen cottu nday laa xamul. Macky Sall de yow naa la torop ndaxte waroo woon bàyyi Sénégal di dem da nga waroon gën a toog ba deux mille trente cinq. man loolu laa bëggoon. yokku diwlin parce que instant bi sa économie bi mi ngi wàcc parce que diwlin dafa yomb ceeb dafa yomb dafa yomb lépp a yomb yéen dinaa tey ba ngeen di xoolee benn bët barki sëriñ <laughs> barki alquran karim yéen mérité woo leen sax di dund mérité woo leen dund a genre aadamoo bu toj seen cottu nday yi ngeen di dugg ci ay kontam muy xas ummi elee ngeen signalé kontam ñu katt ndayi kontam ngeen toog daan danga koy dooleel xale yi jigéen ñi caga ji sew ji dugg barki yàlla Macky Sall Macky Sall bu ma ñëwee Sénégal dinaa ñëw ba palais de ndax instant bi jox na état bi jox na ma billet gratuit pour ma ñëw ko yëpp yëg man faalewu ma leen awma lu may lu ma leen di nëbb ndax lijjantiwu ma seen cottu nday bu ma ñëwee Sénégal dinaa dem ba ca Macky Sall ne ko ceeb cherul diwlin cherul compteur woyofal cherul dara cherul Sénégal parce que bu cheroon sénégalais du ñu wër di duul nii di fen li ngeen nekkee si TikTok bii ku am dund bu cher du ko def yéen ñun ñi ngeen nekk di xas ñun woyofal bu buñ ko rechargé tey mu jeex suba am nañ lu ñu koy rechargé yéen ñi nga xamante ne ay baadoo la xaraamata kunkaan konkorong ngeen doon Euh, dund bi bu cheroon doo leen tala toog si tiktok bi naan da ngeen di xas laago wala di xas koo xamante ne tànkam dañ kaa dagg lu ci seen cottu nday bu bu ummi soxlaa protège wala bu ko soxlawul moom la concerné duul ku bëgg dimbali ummi demal buy comme buy buy buy buy buy kii buy live yónnee wala nga yónnee ka cadeau seen cottu nday yéen sénégalais yi bu ummi di di di di di di di xam ngeen fu mu dëkk bu baax a baax a baax ci Sénégal boo leen ko bëggee dimbali yow princesse kattal sa nday boo bëggee dimbali ummi mi demal fu mu dëkk yaa nga Sénégal moo ngi Sénégal ñi bëgg a defaral ummi ci suuf lañ koy defaral fësaluñ ko benn yoon yow kattal sanday ñàkk yor moo tax ngay nekk di rey xale jigéen yi nan da ngay jaay ay produit fes ak produit sain moo tax jëkkër di nga ko yéex a am doomaram ana jigéen nag utiliser produit fes ak sein pour pour naturel lañ wax naturel katal sanday nga dem uti ji liggéey bari nga wax <laughs> dama nga uti diplôme moom maa koy naan leen di xas ummi moo gën seen tuunu nday foofu ndax boobu au moins takk nañ ko ci biir Sénégal xewal na xuuxal na ay noonam mi ngi ne dugal nañ ko ci biir kër doomaraam yenn ummi mii da da leen lijjante da leen faale ummi moo leen wax dafa soxla protège ummi nit ñu baax ñu mu xam ne bu bëggoon protéger dina fanaan duul nii la bëgg toogee jëkkëram bu ko neexee yërëm tollu ba xolam sedd moo tay da ngeen koo moom koo jëndal da koo jëndal compteur wala ngeen koo jëndal connexion wala da ngeen ko jox téléphone am quatre-vingt-sept tay da ngeen bu ko neexee yërëm bu ko neexee dem jëli yaayam mu gàtt mu indi ko ci internet bi assumer ko yéen ñi da ngeen assumer seen nday ak seen bàyyi yéen xale jigéen ñi Sénégal lan ngeen fi nekkee kat seen ndey di dem di cagatu dem di ko joxe ji seen fari yi est-ce que da ngeen koo jox seen yaay da jël seen yaay valoriser ko ci internet bi da ngeen jéem a tukki defaral seen ndey yeek seen baay yéen a ngi toog Sénégal bunoo bun koy dugg ci doomaraam ngeen di xas ki nga xamante ne dafa jël di valoriser yaayam di valoriser jabaram ngeen ne non lan moo tax muy dugg ci ay laago doomaraam yéen yéenay nekk di xas yow Adamo laago dafa wees yow suba mën ngaa xëy ñu dagg sa koy yi dagg sa ñaari tànk yi ngay duul ngay dajale nii dooma weesul de yaa ngi am 40 ans góor jigéen nga sa koy yi munul jug doomaram yow boo bëggee daaneel jigéen sa loxo yi nga ci jàmb ba mu ba mu daanu doomaram duulkat bi nga doon yow war ngaa xas ummi duulkat yow yaa dàq duul ñëpp yow duul ngaa duula duula duula dul duul duul ba sa bakkan yi man mun naa wax fii ba ngoon sama bakkan doo ko gis mu siit parce que alcool moom danay xel yi drogue lay moo tax drogue naa wax ba ngoon samay bakkan du siit parce que ma yow nekk doomadam ñàkk ngërëmu ndey moo tax say bakkan di siit à tout moment yéen Macky Sall dëggagul seen ndey sax barki alxuraani karim Macky Sall bis ni ki tey du question ne que Euh, da ngeen xam ni damay xeexal sama réew moo tax ngeen yëkkati cinq millions jox ma ko ko dama leen di xeexal de déedéet du sax loolu man maa jël sama initiative bu bopp xam ni que sénégalais yi mérité wuñu président bu baax mais président buy kat seen ndey chaque jour lañ mérité. te Macky Sall koo teg ci réew mi dinañ ko voteel koo teg ci réew mi sama ndey moom lay voteel sama baay moom lay voteel. Ah samay waa moom la ñuy voteel. man mii moom laay voteel.